Ndiol ak Ndama waaye différence de poids bi dafa ëpp ñaari mbër différence de poids bi dafa ëpp mais Bas ñaari mbari différence de poids bi ëpp na Bas it. borom li à mooy Ndefleng. ñaari rouge la waaye Ndefleng moo leen woon ginnaaw Basir nee na ma borom lu rouge li mooy Ndefleng waaw Ndefleng daw na jël sa waay rasu. boo seetloo si taay def leen ko ko point def leen daw na jël ko sol ko bëgg ko forcer sawaay oo oh, sawaay eh. xale bi nee naa leen xale yi daa bëri trompeur da ko bëggoon a xar wéyale ko oo oh, bu la daanoon rek tey ma la bu la daanee woon say fan si rey la te ñu refoulé la génnee la Gambie la Guinée nga béyi ñambi a Basir bu ko booy noonu tey ñu génne ko Gambie yóbbu ko Guinée mu béyi ñambi wala mu béyi pataas nee naa leen xale yi daa waaw daw na jëlaat ko bu ko forcé booy bi xar na ko yóbbu na ko daan na ko exploit nee naa leen xëy na bëri na ko waaw daw na jëlaat ko bu na ko yóbbu na ko rey na ko exploit jëli la daan rey na jëli naa leen xale yi daa bëri trompeur nee naa leen xale yi daa bëri trompeur forcé xar na ko yóbbu na ko daan na ko yóbbu na ko daan na